comme na ma ko waxee woon démb tey jii ma yokk loolu ma waxoon mu jëm toujours ci naafila online comme xam nañ lan mooy àtte naafila par rapport ak woor maanaam lu facultatif la lu volontaire la loo xam ne bu la neexee def ko bu la neexee doo ko def te it tàmbalewul fenn yemul fenn bu la neexee naafila benn ràkk kepp bu la neexee naafila ñaar bu la neexee naafila ñett bu la neex nee naafila téeméer bu la neexee bañ naafila gannaaw nag xam nañ àtte naafila bi ñu nekk ci jamono joo xam ne nañ ko daan defee te muy xalaatu Seydina Omar te nekkul di santaane yonent bi nekkul di sant lu Seydina Ababakar defoon nekkul lu Omar njëlbéene woon kon nag ñu xam ne kon façon julli googu nu neex waay mu defee ko naafila individuel sunna la am na waaye naafila collectif bi du sunna du lenn lu mooy xalaatu Omar la xalaatu Omar la Omar am na yu fi fekk aj ko sañu ko dindi mais mu aj ko ne mënu ko exécuter kadaalika na ko noonu am na yu fi fekkutoon def ko ci xalaatam naafila bi ci la bokk kon nag comme nu comme nag facultatif la te à euh, d'amateur la amateur de la prière waaye mais amateur football kay war naa am amateur julli am na ay amateur julli yoo ne julli googu seen dafa jël ñeenti jotlikat yoo xam ne seeni baat dafa bari doole mu taxawal leen ci koñ yi jàkka ji kenn koñ bu ne kenn taxaw fa bu ne allahu akbar ñoom itam yuuxu ci kon allahu akbar ña ña leen di dégg di ci ànd loolu nag dégg ngeen li ci des su fekkee ne dafa jël téléphone am téléphone boo xam ne mën naa am Facebook walla lu ni demee ñu tegal ko kon ni ñu koy tegalee haut-parleur bi mu jàkkaarloo moom bu ne allah akbar bu nekkee direct Facebook nit ñi toog ci seen kër yi te xam ne ilimaan bi yëkkati na ñoom it ñuy ànd ak moom bu sëggee ñu sëggi bu sëggee ñu sëgg loolu rek la maa ay nit ñu bari fu ne ñu ngi fay oote ak di yónnee ak di yóbbante naan ma waaw naafila online bi ni ñu koy defee ni ñuy defee boo boo nekkoon ca biti jàkka ja xajoo ca biir te te yow ci oparleur bi ngay ci ngay déggee pour mën a def kazalika mën nga koo def bu dee waa ji daf ko retransmettre ci Facebook wala ci euh, xam bu dee YouTube am na direct wala lu demee noonu kon nag yaakaar naa ne mbir yi naa naafila online boobu réglé nañ ko ci suñu ñaareelu jataay julli online bi. waaw online euh, bi ki lay jiite <laughs> Assane di ma jiite këram. ak <laughs> internet man ma nekk sama kër. julli online ñaan online xam-xam online. loolu moom mën naa ñàkk nekk. Ah, online bi nit ki di la jiite nekk këram nga nekk sa kër moom. Ah. mën naa ñàkk nekk. Ah. waaye nag nit ki di la waar nga nekk këram mu nekk sa kër. moom mën naa nekk. Mhm. juntukaay yi mën nañ cee waarante. mais mënuñ ci jiite julli. déedéet suba ba kenn dem màkk di. Mhm. dëgg la est-ce que comme par exemple bu ñuy wane kaaba gi nii da ngay dem tawaaf euh, tele bi rek ñëw toog. te ah, connexion mën naa dagg. <laughs> te kon mën naa dagg courant lu ne mën na ah, ci du liggéey waaye nag jàngale en distance moom mën naa nekk. mën ndax mën ngaa nekk fii. Mhm. ñu baree bare connecté ci li ngay def. nga jox leen leçon. Mhm. wala mën ngaa jël enregistré ay baat firi ko par exemple fi ne mën naa nekk fii. Mhm. di jàngal ay junni nit laxdar yu am déet mhm. su ma defee nii ba mu kii rek ma daan ne awalu maa yajib al mukallaf tasihu imaani yi saraal leen ko ci cinq minutes bu ma cawee mu dem ci ñoom oh. loolu mën naa ne defee ci Facebook Pape An di ko defee noonu. ci Facebook mm-hmm. jàngale bi mën na ne mais jiite julli bi. Euh, ci online bi ne mënta nekk mënta nekk